jigéen su mhm. eh, ma toog de suma fit baa ngi dem di mu ne ma ngay yaasin xam nga yow danga baax yaaga nga di liggéey ak yooyu mhm. moom dëgg la moo tax daal man gis naa ni xale bu baax nga so am interested in you loo ko tontu toogoon naa bu baax ah, awa yow tam ma xajaan ni naa ko xelaataan mm. lu ma a waxee noonu lañ ne ko yees pour la mel ni man dama waaye yow ba gaw gaaw déedéet nee Yacine amul sax xalaataat bul hajan xajaan gi fu mu nekk ni daal moom nga wara bay yow ki mu ngi la buga mu ngi am alel, buga ko mané hay ay lu mo wax la am fi do wax hajan xajaan nga wax ak lan nga wax xajaan xajaan xewatul jigéen buy xajaan buur loolu amatul ndax yaaga yaaga si gannaawam ngay mujjee yow sa boos ku baax la te su su soo ko dina la mun a yor te kilifa dafay mut kilifa ndax su nekkoon keneen du pare dara sa diggante yaag moom lu du def yu bon yëfi caay saay ona la wax la wax ji kon nga war a mun a xam ne ni ma wax loolu déggu la ci moom yaa ngi dégg dina la góorgóorlu sa diggante yaa moom kilifa la de du ko ndaw ndax yaa maa dégg bu baax waaye waaye umi yaa waane te soo naree toppa ci alalam di ko lekk buggul la ko pare koon na sa mujjantal du ci nekk jigéen sëy mooy sa photo mooy sa nataal yaa ngi maa dégg mm-hmm. su la bëggee moom sëyal ko moom de d'accord naa si moom te nga ma nag ca pala yow maa te nga jël ma ci palaale yu njëkk yi <laughs> waaw waaye yow xanaa yow musuma gis ku waani ni yow yow yaa waani yow dañ na ne yaa si a si yaa paa bu maa boobu noonu waaye man sa lool de paa boobu nga xam ne dee dee ko dese nga naan ne yaa si sëya kooku yow yaa bon yaa añaan yaa soxor yéen a ngi nii xam ngeen ne man Amadou laa dégg pour seet. léegi li ngeen lu tax ngeen aw Amadou ma nga xamante ne ñaata at ñaari at muy jaamani laan foon sa musula cee kool. waxatuma la nag télé mobile boo xamante ne fu waaye dem yóbbaale ko yow nga ne kooku ngay xaar pour mu war a ñëw takka la yow gis nga kii mu la bugg a takka te kii ku baax la fas yéene wuloo pour seeyali ko nga may wax aywa rek Amadou la def in yow. yow yaa ñàkk a fayda. seeyala Amadou ba mu la baat bi dafa màgget pour yow du sa size du sa masse pour faale kii kii dafa añaan daf la ñee rek li nga am la amut li nga am la amut bàyyil umi umi dafa añaan ah yi keneen nit du ko dig digal nit sa xarit su de nit yaa ngi ko ooyee sax nit doo ko digal lu man naa li ma laa digal xool ma nga ne kan mooy ñaan yow nag yaay ko bon ki <laughs> yow yow yaay ko bon yow sa xarit mm. yow nga ne kii sa xarit mm-hmm. nga gis lu baax muy ñëw ci moom digaluloo ko yoon bu baax da diko digal yoon bu bon ci kaw mbaax boobu mu bu a def. legi da nga bu a wax yaay ko bon yaay ko bon ci mo bu mo hat bon yo ya ko hat yo do mala bini eh, am na lu ma fee da nga stupide da nga stupide rek loolu sa problème yow da nga stupide. waaw ni fu mu nekk nii da nga ñeende yaasin ni lim am amuloo ko. yo ya, ay ya, kala ci yo ya indi la mo yo loolu loolu la. waaye nga ne man duma fay nga man duma ma yo ak ba xam nga ne man duma fay yo deglu dégluwuloo li ngay wax sax deglu wat nga sa bopp ya ee bu ñu doon rek wax boppam nga deglu wat li nga wax nga xam ne li nga wax nit ku eew léegi sax. man dama bëgg a ndey Yacine. yow yow yaa dama ko bëgg te bëggal ko lu baax. li ma sol si sa nopp bi mooy li laa njëriñ dama bëgg nga ubbi sa bi nga déglu ma bu baax kii lum laa wax ëllëg ak si biir daf laa lori ji du la njëriñ. yaa maa dégg du la lor dara li ma la wax ci moom li ci njëlbeen ba looloo ci ne rek. Hmm. añaana ko rey. Hmm. fii añaana hmm. dama ñëw fayda yi. bi tey yow urgence. waaw dama ne nañ dajee feneen fu dul. dinaa ñëw demal la yéen ñaar moom mun leen a toogal bu añaan bi nga am yow. demal waaw yow sa bàyyi kii bi dem gis nga kii dafa bon. dafa iñaan dafa siis man nit ku mel ni neexut ma gis nga kii su ma demee ba sëy lu ma ko munti am du ma ko may kii ma ko may. allo Gals yi. kii du ma. waaw yow ma yow nag yow man man man man du ma la gisee nii daal boo xamee ne indiwuloo. yëpp pour yow.

xam nga man li ngay tax man ma nopp la. daal di ma sa puuca. te bu ma si naree pàcca rek bàqu. te wax naa la ne. yaay suma ceeb bu sew. te ceeb bu sew moo ma gën a wax ju sew. loo ma sax naa ko def. yow lu amul tukki ñun teguñ la ko. suma mère bi léegi mu génn si te xam nga ko moom. amul wees tànk amul xam ne ñaar ñu si wàllu léegi foofu rek. suñu waay la nee suñu waay la suñu waay la. dafa mën a am fu ñu jógee waaye boobu dina la kumpa de. dina la kumpa de ma denc ko. waaw dugal ko dugal ko waaw c' est bien yow. maa ko def ñu daal bu subaa ñu réglé ko amul wees tànk sax. bu subaa nga la. réglé ko baax na. man moom suma liggéey wàccan. waaw du kontaan nga. ma dem santal kii nag santal kii. xaaral ah, ma oo suma mère yaa. Boleh banget. dimbale ma si sa umi man dama si soona yow boo yow da nga ñaaka fayda trop yow everyday xale gi daf laa tiye dina tuy san doon mag bu ni yow ah da ngaa mel ni man saas bal sa yo nit da nga am fayda jéem a def sa do sa bopp bi ah da nga ñaaka fayda trop waay waawul doon booy leeta leeta allo allo dama baral man danga def. danga def. yaa tudd naka. soxna. moom yow sa sant gi nice na nii tey di si ngoon si. dama ko oyofal rek. kon danga ko oyofal nii. sangooguma sax. aywa danga ko oyofal nii. Mm. yow de itam bés boo ko diisalee moom bu soobee yàlla. leneen aduna tukki. moom kañ moo tax ma bugg a laal ma ne. mën mm-hmm. naa am sa nomba. nomba kan. yow xanaa ñu nekk xarit bokk. man tey laa tiir yow yaa fi toj man ngaa laa ci a man nii ah, nii nii ah, waaw comme que ma euh, mun koo fekk yow rus lu ma laa wax rek mooy loolu yow bu la gis man fu ma koo diisalee nii rek ngeen dee def ñàkk a fayda ba bëgg a dee man mi nga xam ne man xale bu ndaw bi student laa loolu maa ngi a demal ma demal fële bàyyi ma bu ma xaaral sama oyal sama daadi daadi xaaral ma oyal ma laa bu laa bu laa ñàkk fayda bi bëgg a dee yow man dimbale ma yow dimbale ma xaaral rek suma ma ñëw. waaw baax na dadi dadi bu ma bu ma. soxna kii kan ni. dama ko xam dadi man ma jógee. yow loo amul foofu yow naa bëree si yéen bi ñàkk sa ci lan. hey nga lan la man classe tam la. ah xam nga sorry daal sorry daal madame Bunda. sorry maa yi lu mu def ni ngeen di def di ah. kan fii bëggatuma la fee gis dama gisu fii yow mu ñëw ñaareel fii billahi wallahi laxa laxa ma ne laxa ah waaw taxaw taxaw xaar taxaw xaar yow su mu ñëw fii yoon bii dinaa ko xar ma dog ma dog mu wasin mu am doom bii mu ñëw rek mu ñëw waa baax na waa baax na mu ñëw fii ñaari yoon waaw mu ñëw fii ñaari yoon bii dina am doom waaw ñaari yoon mu ñëw fii rek seen doom bi ma bëgg ko promoon man may boy ku seer ñëpp noom ma sa ah, boy seen doom bi mel ni kii bu mel ni ak kii bu ay bi yóò wá ní yín yín yín yín. soxna dama bugg a bul amati benn affaire ak ñu ñàkk a fayda ñii nii ah. c'est-à-dire man xaw ma kii sax kii xam nga ne man lii moom du sama affaire dama war a rek ma ñëw ba fii rek mu stop ma di wax ay waxi noonu seen sax man xaw ma ko sax. waaye lu lu tax ñëwuloo driver bi. ñëw na de dafa ñëw jël ci man fekk maa ngi amoon extra classe léegi ma ne waaye na nga bàyyi sa de. dinaa def bu baax a baax nag. yow ma ko soxla. waaw xar biir bi ñaari yoon. mu am doom biir bi mu ngi rëy mu ngi naka maire bi. Ah. ah waaw. xam nga sax dafa yàgg bi ma foogoon ne daa ah, doon ñëwaat. ah dafa génn dafa génnoon. ah mu ngi nii ah accès la accès la. ok accès. Ah, waaw war ma indil la lu seddaloo na. déedéet naa ah ok bon tool xam nga fan yi dina am ñett wala ñeneenti container